ñu xam ne ñun ñëpp ay jullit lañ ñu ciy taalibe taalibe baay lañ nañ ñëpp taxaw taxawu gan yi taxawu taalibe yi ku nekk sa buntu kër foo nekk rek de ko bàyyi xel eh, di ko defar dana am bés bu ñu oote boo xam ne dañ ko yëgal ñëpp waaw boo xam ne nii bu gàmm gënee jege si incha bu ñu amee kàddu nga nga tamit loolu maa ngi ci bëggoon a wax maa la bëggoon a seet si sax parce que dafa am kër gi xam ne ñu di doole lañ seen foos bi dafa am problème léegi ma ne woon dinaa ci ñëw waxtaan ak yow boo ñii di commencé vider ñu vider leen ko ñu mun koo defar parce que foofu tamit lu koñ bi yàqu la foog ñu taxaw ci jàpp ci yàlla baax na yéen yàlla jàppale ak Cheikh Ahmad Tidiane mi nga xam ne ak baay mi mu ngi tax a jóg waaw ak Cheikh Tidiane mi ziyaare ji ba ñëw danañ yàlla kàttan naqarlu waaw ni ngeen dëkkee ni mu méttee dañoo ñëw pour jàppalante ak jullit ñi dëkkandoo di bàyyi ñees yi askan wi fi nekk ci yi nga xam ne moom la ñuy dund suñ mënoon dindi lépp ci benn fan wala ci ay fan danañ ko danañ ko def waaye nag mënuñ ko ñu ànd ci ngeen di leen digal yéen tam njaboot gi yëpp lu waay gis ki sa bunt kër muy safaan rek fi gàmm nga góorgóorlu ak lu dul gàmm yëkkati ko dañ tànn benn bés boo xam ne nag bu gàmm gi jegesee sa sel boo xam dañuy oo ñëpp ku waaye mën loo rek fi ak foo mën a bàyyi ko ñu bokk ko balaa ñuy dugg ci gàmm gi bisimilah. jërëjëf jërëjëf waaw. waaw a ah, ñun de kon mi ngi yoon wi ñi ñee sëkk mbedd mi ndox mi jàllatul di arrêté waaye nag neexuñu te mënuñ ci dara. waa xam dëkkandoo dafa am àq ba tax na mënuñ ci def yu bëree bëri mënuñ ko ci def waaye nag ñu ngi koy méttilu di ko naqarlu fas nañee ne taxaw lépp luñ ci man incha allah danañ ko def bu soobee yàlla ci barke baay jërëjëf waaw soxla nañ ndimbal bu baax bu tawee ñun duñ mën a liggéey lii rek lañ yaakaar daan suñ doole ñas yéen rek lañ si yaakaar wallaay yaakaaruñ si kuréel yéen soxla nañ si ndimbal ku ñu ko defaral lamp yooyu yëpp soxla nañ waaw ñu ngi siy ñaan ndimbal bu baax ñu ngi lay ñaanal bu baax gis nañ sa taxawaay ñu lay ñaanal bu baax yal na yàlla guddal sa fan si barke alquran ñas ñas jërëjëf dëggu ñu ngi sant yàlla ñu ngi tey si suñ deuxième journée euh, ànd di liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu fii ci Medina Baye ak li ko fii ñu nekk nii fu jege la lool Medina Baye ak sëñ kër fu jege la kër sëñ Mamoun ñu ngi seen jumaa ji bi mooy kër Thierno Ibrahima Ba bu Thierno Assane Dem lii këram la ci këram yi mu ngi jàkkaarloo këram waaye canalisation yu bon moo indi lii ba nga xam ne bu tawee ndox yi di taa ñi ngi fekk ay doomam ñi ngi sëgg di ci liggéey mu ànd ak jafe lool kon nag ñi ngi interpeller autorités yi bu baax ñu gën a bàyyeeyaat xel askan wi gën leen a jàppale ñu ci mën ñun ci jotal kàddu yi danañ ko def ñi ngi jéemit ñu mën ak xale yi ñu àndat luñ romb luñ mën a yëkkati for ko ñu mën a fomp fomp ko pour wane rek te yàlla tax da nga ne ñun ñi bëgg nañ lii dañ waaye tam di digal ñi ci koñ bi ak ñi fi dëkkee ñoom it ñuy set setal lii nag neexut a set setal ndax tilim bu ëpp la ak jafe-jafe waaye li nga mën rek sa kamtalaay kattan dee ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. may ko mu gën a gis lu ma lu ma ci métier bi askan wi di dundee dëgg dëgg lii ñaaw na ba fa ñaaw yem ay nit yu dëkk dëkk ci lii lii arrangé wut santé te doomu aadama lii ministère de la santé ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bëgguñ lii ci li ma jàpp parce que lii dafa nekk loo xam ne ay feebar la kon nañ gën a yokk ñun suñu ittee fexe lii àgg ci autorités yi ñu xam ko ñoom it maa ngi leen di ñaan ñu taxaw ci li ba parce que dëgg lii moom ku ko xool gis ko ay nit dëkkee ci néeg yaa ngi nii fi ñuy fanaan a ngi nii weñ yeeg nangam kenn xamul lii lan la ñu ngi koy ñaawlu bu baax di ko tawatal yàlla yal yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax. moom dëgg yàlla gis na ni taxaw meri na gis na ni taxaw meri na bu baax a baax yàlla na ko yàlla may wér may ko gudd fan may ko ndam lépp li muy ut ci meri na yàlla ko ko yàlla may ci barke Ba Niass jërëjëf Niass métit rek a coono sonn nañ bu baax a baax sonn nañ métit xoolal fi ñuy toogee amuñ sax fuñ toogee amuñ fu ñu toogee amuñ suñ lal yi suñ kii xoolal suñ yi day toog rek di daanu wallaahi ñu ngi sant yàlla bu baax gis buñ ko gis waa kay Niass maanaam lii rek ma ne inna lillahi ci dëkk Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci Sénégal lii ñii dañoo néew doole suñu amoon ndimbal ci état am ko ci ñu ci dëkk bi parce que tamit nit ñi wax dëgg yàlla li ñu nekkee métti maa ngi ñaan ñu yore assainissement ci réew mi rawatina aju ci Kaolack ñi nga xam ne tamit ñoo yore yiy manque ndox yi ngel la ñuy ñëw di dugg ci koñ yi di xool ñi niñ dëkkee buñ ko tënk ci rek ci waxtu boo xam ne dañuy soxla ñu ñii di ñëw ci ñoom parce que lii dëgg dëgg métti na xoolal soxna si mi ngi nii taxaw man maa ngi nii taxaw ci bunt bi dal waay kaay gànn gam dañ fiy dal fi ne mënumaa dox sax dem moom fi ne kii li muy def ak moom doomam yi nan la ñuy def ba dugg fi boo amee ko bëgg a seet kii fan fan lay ñëwee fii bu amee ko feebar mën ko yóbbu hôpital nan lay def ba gaaw day xuus ndox mi te tànk yi mën na mën naa mën naa jël feebar ci ndox mi dëgg dëgg lii ñaaw na xalifa bi dana ko yëg ñi ko war a yëg dinañ ko yëg ñaanal leen yàlla yàlla ubbi ñu ba jeex jeex Medina Baye ak ci Sénégal. bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci sëriñ bi teewaayam fii tey ci koñ bi parce que tey lii métti na métti goo xamante ni bu leen foog ne rek ne nawet la rek ni yaa ngi dégg même même su doon nawet sax nii lay mel parce bépp ndox bu koo fële ci kaw fii lay kii si am na fi at ci gannaaw. koñ bi fii nii wax dëgg yàlla amoon na fi jàppante bu métti ngir rek affaire ndox yi fii ñoom jàpp nañ ne fii bokk ci Médina même poto yu bees yi nii ñuy samp nii ak si fu fi canalisation yi ñuy def nii tamit ba mu ñëwee ba ba fële fa lañ ko yemale jaar di def nii te fii nii lu muy wàccee par gàmmu ay gan wallahi da ngay ne fii la fi la defee gàmmu gi parce que fu mu ne Médina fu mu ne xat na. moo tax ne lee gan yu agsi rek ne dañ leen saaree si koñ soo ñëwee fii gàmmu da ngay ne fii la ñuy gàmmoo ngir lan gan yi fu ne léegi ñëpp xajatuñu fii ñëpp fii la ñuy fii fii la ñuy dal kon nag lii sëriñ bi li ngay def nii xamoo ko sax wallaahi lazim xamoo ko yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla dimbale ci liggéey bii ngay def ni su euh, da ngay xool politiciens yi yaa ngi dégg su seen événement jotee nu ñuy sonalee dugg ñëw si koñ yi fii dugg ci kër yi yaa ngi dégg wax wax naa ko bi amut bi amut la la lampe solaire amut même même poteau yu bees yi nii ñuy samp nii fële la yem ak si wu ñoom daal dañoo jàpp ne fii bokk ci Médina te fii ci Médina la jumaa jaa ngi nii ngay seen xoolal jumaa jaa ngi nii kër imaam Cheikh a ngi nii ngay seen kër Thierno ngi ne kër sëñ Maamu ne ngi ne waaw yaa ngi dégg waaw parce que wax dëgg yàlla métti na métti na trop xoolal da xool lii ñii dañuy dalal ay gan fii yëpp dañuy dalal ay gan waaye lii tamit su gan yi ñëwee fan la ñuy dal métti na trop sëriñ bi yàlla na la yàlla dimbale yàlla na la yàlla taxaw liggéey bii ngay def nii wallaahi yàlla leen si yàlla jàppale waaw parce que métti na yemul fii yëpp tey jii bés bu bàyyi ñoon wallaahi doo sànni sa toogaay billaahi la ilaaha illa llaah waaw parce que lii waroon nañ am na ñeneen ñu waroon fii ci dëkk defuñ ko waaye yow yàlla may la yaa ngi dégg xaatir bi nga jug di ko def yàlla na la yàlla dimbale si barke Baye Arame macha allah jërëjëf Niass jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin amiin yaa rabbi ñu ngi ma saw ci ni ngeen dëkkee ñu ah, ngi ma saw bu baax ma saw bu baax ñu ngi sant yàlla ba jëmm ji nga xam ne moo doon alaaji Ibrahima Niass ñëw ci suñu ñu ngi sant la ñu ngi koy ñaanal yàlla yéen na ko yàlla may wér ak wér le jétti baayam fan te yàlla yokk barkeem yàlla hubbi warsagam mën a taaw mbooloo mi te incha dana ko taaw billahi wallahi dana ko taaw sa mbooloo mbaay barke ala maa ngi sant yàlla jul ci yéen di gërëm suma ñaari way waajur tey jii maa ngi sant macha mel na ni Maolana moo taxaw nii ni ma ko géntewoon gis naa ko maa ngi nii jublu penku maa ngi nii jublu penku maa fii mu ngi naan muhammadun basarun laa kal basar bal huwa kal yaquutu Baye Barama Niass ci boppam barke Baye Barama Niass ba ma ko géntee boo bàyyi limaan a ngi dund ba ma demee ca bàyyi limaan mu ma doom ma ne ma ne ma yàlla sa wërsëg xaam mu ngaa laaxira tey du ko yëkkatee boppam mu ne kañ la waaye bu ko notti bu ko nettali say noonu lii la ma wax fii nag kër gii ñoo fi njëkk a miir kër gii koñ bi maa fi njëkk a miir waaye lii la suñu borom dogal te fii moo ñu ton sonal ñetti kër yi daaw bale ñooy puusal ndox mi li nga suñ kër yi mii yëpp daanu na te fi ne jublu gàmmu gi waaye ñu ngi sant na yàlla bis ni tey mu ngi mel ni dañoo naag baay yàkkatuma dara macha allah yan na yokk taxawaay ma teewe nañ ko yan nañ ko teewaay déwéni déwén yàlla yàggal la ci suñ kanam ñi aram am nañ ci ay yoon xari sëñ maamul mi yéen a jàgg ci li ngeen du ma sori laay yàlla ak ñi ma ñun de gannaaw yàlla ak ba yéen rek lañ yaakaar ji kër gi suma yaay sa papa ko ko wutal mu tudd Yacine gay muy Yacine gay di sa taalibe papa di sa taalibe papa moo ko ko jëndal bii mu di ko soxla suma yaay gaañu ma ne waye gis nga suma neeg bële mu nga fess del yobalal nit mu dem set ko ci neeg ba dem ak set waaw kay ñas waaw daaw jeek daanu na fi bugg julli ji àjjuma ma dem bugg a tey julli ji aljuma bi yon nak ba bam tay tey génn buntu kër gi julli ji aljuma su aljuma jotee rek suma xol bi day jeex ba ma tok fi julli gannaaw yalla ak yonent ba nak yeen yaakar yeen yaakar ak ngeen dimbalé ñu ngir yalla dimbalé len ñu rek ñas ngir yalla ak bay man dé buma déwonté ci ndox mi lañ may xeeb di ma yóbbu ma xuy ji bay alhamdulilah ñas ma ngi fee suma njaboot waaye nak neeg ba nga né dé waaw kay ñas yegg fa sax waaw. ñu koy tawatal yalla ci buntu Mawlana Cheikh ibrahim Niass luñ mën ci khalifa bi yekko dañ ko def kilifa yi su ko defé tamit ak autorité yi ci réew mi yàlla na yàlla dimbale. pousse leen ñu mën nag mooy ñëw ànd koog yéen luñ mën a for yëkkati ko suñ kamtalaay kàttan ñu ngi koy def ah li ci des nag ñi nguur mel ni makki Sall di président réew mi ak son excellence ñu ngi koy interpellé at ñu ngi ci fan yi continuer di xool dëkk bi te xaajalaguñ ko te nu mënuñoo dugg ci kër yëpp kër am na kër yu ñu dem dañ nañu dafa taataa ne nañu ñetti kër yi ci gannaawam yëpp noonu la mel te xam naa ne fii nu bëri noonu la mel dëgg dëgg lii moom danger la boo xam ne neexul yàlla neexul bàyyi dafa war a dañ curum gën a gaawe parce que lii sax mën naa tëj wërsëg ay dëkk ak ay réew te néew ju doole yi ñoo tax yàlla di wërsëgal jaam yi dinaa ko jotal xalifa bi dinaa ko jotal kilifa yu ma ko mën a wax te ma mën leen ko wax ci autorité yi ak ci képp koo xam ne nii lu baax moo la tax a jóg ñu fexe taxaw ci lii lu ci état mën a joxe ñu joxe ci lu ci jaamu yàlla yi mën a def te yàlla tax yaa ngi dégg ñu jaare ko fañ ko war a jaarale te nekk lu leer ñu def ko ci fii la neexee sax nangam nangam ba tax daal dañ ci taxaw bu baax daal suñ kéemtalaay gàttan luñ ci deful rek dañ koo mënul ñëwuñ fi ngir ku ñu xam ñëwuñ fi ngir politique wala dara dañ fee ñëw te yàlla tax waaw danañ jéem luñ mën nag incha allahu taala ñu ngi leen ñu ngi leen di masaw bu baax ñu ngi leen masaw boole si ñaan yàlla rek ngeen ñaanal ñu yàlla amiin amiin yaa rabbi ñaas wa rahmatullahi wa ngi ñu sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. gërëm nga xam ne nag moo tax ñu jug tey mu jëmi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xidmaal ko tam ci dëkkandooram yi njabootam gi taalibe ak kudu taalibe ci képp koo xam ne nii yaa ngi dëkk fii ci Medina Baye li nga xam ne nag moom lañ gis fii ëpp na suñ njort te ñaaw na lool yàlla xam ne ne ñaaw na te du yàlla tabaaraka wa taala yàlla li ko war moom mi ngi koy def si jaamam waayante nag ñi ngi interpellé ci làmmiñu taalibe ci làmmiñu ganu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci làmmiñu askan wi fi dëkkee di ñaan di oo ki nga xam ne moom la askan wi fal nga xam ne tey ak ëllëg yëpp responsabilité bi ci moom la nekk ba ba muy bàyyee nguur gi te dana ko layoo ci kanami yàlla ñaa maa ngi oo président Macky Sall ci jug bii ma jug jug ko ànd ko ñi ma ànd ak te yàlla tax ñu defal ñu ay solution yu yoo xam ni yu définitive la pour canalisation bu gaaw ngir askan wi ndax askan wi yelal nañ ko waaye rawatina ngir jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahima nga xam ne kër gi am nañ coloré ak moom Macky Sall président son excellence maa ngi lay owaat di la owaat maa ngi lay owaat di la owaat yëf yi moom ëpp na ëpp na ëpp na waaw wax dëgg yàlla nu ma ko waxee rek amuma terme ak mots yi nga xam ne moom laa ko mën a waxee. danaa jéem nag autorités yi fii ci Kaolack donte xam naa ne am nañ yéene bu rafet danaa fexe wax ak ñoom commission yi may liggéeyat si ñëw ci CRD bi danaa gën a veiller ci ñoom waaw su laajee ma seeti leen sax seen directeurs yi ma seeti leen te yàlla tax. gën leen a wax li xew nii ak ak urgence bi fi am waaye ministre de l'intérieur maa ngi koy interpellé bu baax ci lu jege ak ci lu sori te bu yàlla defee ñu dund ak jàmm war nañoo dajeeg moom altine incha allahu taala su ma yàlla mën looyee kàttan loo ma incha taala ñu ngi rafetlu mu gën a taxaw ci di bu baax waaw lii nag ñëpp ci war a taxaw talib Baye am nañ ci responsabilité waaye nag rawatina état ñoo ci ëpp responsabilité dëkkandoor itam maa ngi leen di laaya bi leen digal képp koo xam ne nii tamit eh, la nga mën nga def ko ndax ñun nii ñu def ñu tey dañuy jéem bu ñu mënoon a bale fii yëpp bale ko bu ñu mënoon a dindi ndox mi yëpp dindi bu ñu mënoon a canaliser canaliser leen ko mu jeex ñu jàll ci leneen waaye nag yàlla ñu ko yàlla mën loo léegi nag dañu fexe tam di set setal rawatina gàmm gaa ngi ñëw fii moom xam naa set setal yomb fii waaye alaqal ngeen jéem rek bu dee ay mbuus yu sànni la wala nangam li ngeen ci mën a yëkkati wala mbalit rek ngeen def seen kéemtalaay kattan danaa waxtaan ak gars yi ñu seet benn jour boo xam ne jege gàmm lay doon nga xam ne bu sese danañ ko affiché wax ko askan wi yëpp wax ko taalibe fu ñu mën a nekk ah ah ñu pare pour liggéey pour bale dëkk bi bale fi ñu war a gàmmoo bale kër baay bale fu léegi nag su ko defee nag bu fekkee ñi ñu bëri nañ ñu ne ci bay tamit foo ne sa buntu kër rek nga bàyyi fa ñoo xam ne foo ne rek mën mën ngaa a yëkkati wala nga bale la nga xam ne mën nga koo bale maa nga tànk la nga xam ñëpp di sant di leen delloo kàddu gi bu fekkee am ngeen kàddu. Yes Kumba Abdoulaye ñu ngi nuyu di la tatakaram ah li nga wax nii pour canalisation yi waroon nañu ci dimbali bu yàgg muy président de la république waaye dimbaleem gi dafa yàgg parce que Médina Baye warata nit naaw ci avion bàyyi ko Nigeria bàyyi ko Maroc fu ne nga ñëw ne maa ngi gàmmu ci Médina Baye nga ñëw fekk Médina Baye mel nii ah, mel sañ bi ma ko gis nga suñ fii ni mu mel waaw waaw sonn rek lañ def xam nga di séntu ay gan rek sax buntu kër mel nii du dara lu neex waaw ñu ngi ne ñaan dimba rek waaw di sàkku daal ñaan rek waaw waaw waaw dañuy wax rek parce que ci xeeti bind leetar la bokk média ci xeeti wax li nga bëgg a wax ci maa koy wax ci yar jëm ko wax ci yar ak teggin ñaanal ci ak teranga man xew bi wala wala conseiller la bu la wax lay nga jotal na nga jotal parce que li dafa garaaw dama ci tëkku nag dara waye lima ma du tiaxan askan mi moom taxu mo na Cheikh ibrahim lay liggéeyal gëm leen na yalla nga and ak man yon sa sama nga and ak man Cheikh Tidiane anou Baye nga and ak man waaw kon nak na ngeen defar li waaw na ngeen defar li duma wax bu ngeen ko defaru dara nangam de parce que mo leen te jàmm la la yéene yéen a ngi bëgg lu bees ñeneen nga bëgg pour laaj rew mi senegal ni mu nekk ni ak li gis ni ak lima ma nañ defar li bu ma sori ci wax ji nañ defar li defar rew mi toppatoo askan wi nañ xool ni ñuy ni ñuy ni ñuy waxee askan wi ak ni ñuy jëlee ay dig ci askan wi ba président seetaan ñu nekk ci coono yii nii lii dëgg-dëgg lii lii lu ko gën a métti man gisuma ko lii mu gën a métti kaso waaw parce que nekk ci dëkk boo xam ne nii foo tourné ndoxi taataa la ñoom am amuñ doole te dañu yore ay doom yore ay xale ah nit ñi di takkante di jugee fu nekk di sëy di sëy fii di jugee fii di sëy si fii nii. tool du tool ni Mawlana Cheikh Ibrahima nga xam ne ni bàyyi rafetee ni bàyyi taaroo ni Baye amee xam-xam ni Baye bëggee doomu adama bi muy sañ ci dëkk bi fii moom Baye dafa ubbi dëkk bi yëpp jaayut benn benn pàkk na ñu ngi ne ñëw dëkkal yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Tidiane dëkkal ko dégg nga kon lu mel nii dafa war a jeex man nag lu ma ci mën dinaa ko def ñaanal leen ma ubbeeku yaatu yàlla mën loo ma lii ak lu parce que yi ñu war a régler bëri na gudd fan ak waaye nag danaa jéem rafet naa njort ci fi nekk danaa fexe kilifa gi yëg ko muy xalifa bi dana donte yëgoon na ko ma dolliyaat ko mën naa yëgu ko danaa fexe tamit autorité yi wax leen li ma mën te di leen ci soññu nag surtout autorités yi taxaw leen ci lii lii moom vraiment dootu moom muñ mukk lii moom moom moom vraiment c'est fini waaw lii moom dafay jeex fii dafay jeex ci Kaolack dafay jeex ci Sénégal incha allah. waaw fa amuñ fu ñu xaw suñu ëtt yi fees dell ak yooyu xamuñ fu ñu xaw wéruñ suñu xale yi di dem ak ñëw ci wéru di jamono mu nekk ci lañ toll. wax xoolal xoolal bayo bi rek ni mel xoolal ni mel rek su tawee duñ génn ñun amul benn fu ñu génn. fii sama mbedd mii ma dog nii ci sama kër laa ko dogee jëm ci jumaa yi Baye Mbaye Cissé ji amul wenn yoon def naa ba sonn wax naa ba tonn waaye dara mënu ma am sax ku ma ku ci dimbale pour bu bu tawee sax ñu mën fee aw jëm julli ji métti nañu lool wax muñ nag fenn fu ñu koy jooyee comme nag sëriñ bi ñëw na dañ ko ko wax lii dal moy suñ kaddu waaw waaw di la ñaanal fan gudd ak wër sa bëgg-bëgg lépp loo xam ne yaa ngi ko bëgg ci pays bi yàlla na la ko yàlla jox bañ fekke ñun ñëpp ci saar ak ci baatin barke bi jumaa néegab yàlla bi ak ñi xuus war julli ji fajar wala julli ji bar. góor gi nee vasak fa sax mënuñ ko bu timis jotee dootuñ mën a génn waaw lii Omar kan mooy wax lii juma yàlla la daje ak dëkkandoor yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu xetal leen di interpeller tam ñi ci mën dara ci nguur gi ak ñi ko war a def ñu taxaw ci. ñaan naa nag ba sonn wax dëgg fu ne nii buñ wuti faa bu jënd xasee soo ba ñuy wuti fa kenn du xam fooy xaw dañuy leekaari ca àll bi ñëw. waaw wax wax naa ba sonn wax naa ba sonn waaw waaye dara laa ci mënut. ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala lu julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di gërëm naa Cheikh Tidiane naa Cheikh Ibrahima Seydina dañoo jóg di xidmaal moo naa Cheikh Ibrahima ci fuglu gàmm gi di xool dëkkandoor yi niñ dëkkee wax dëgg yàlla waaye liñ gis démb gis ko tey nekk na lu yéeme lool waxtu fu ñu dem rek gën a gis lu kéemaane mbedd mi nga xam ne moo romb sa buntu kër romb kër buntu kër imam Cheikh jëm ba buntu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu am tëli bu yanj am ay làmp set wecc ak lépp lu fi am ci tabax ndax bàyyi bañ ko waxee ne ko ay kër ak yooyu mit na di jàmbat dëkk waaye beeg mu ne leen ak ñu ne ci tan bi ñu naan tan bi tan bi mu ne moom gisul foofu lu may ay tabax ak ay terrasse waaw kon nag yàlla am na lu ci feeñ yal na gën a yokk te yàlla boole leen ci boole ñu ci dëgg yàlla yoo ñëwoon pour masaw dëkkandoor yi masaw leen ni ngeen méttee neexuñu ba ci kanam yàlla ah, ngi ñaan yàlla yàlla def solution ngeen ñaan nañu ubbee goo xam ne lu luñ ci yéene pour def ko ñu mën ñu yàlla mën loo ñu ko ñu mën ko def waaye tamit danañ wax ak autorité yi gën leen a soññ ci lii xalifa bi tam dana dana gën a yëg lii loolu moo doon suñu tànk incha allah yow nag da nga doon koo xam ne da am taxawaay ci dëkk bi am taxawaay ci xam-xam ñu tudd la Cheikh Mouhamed Nadir nga am doole ci ma maahat bi ñun dem nañ fa sax ba ñuy wër kii dem nañ ko rek maahat bi waaye la ma fekk foofu daf ma métti ndax ndox yi taa foofu ak yu doy waar waaye nag yàlla nañ yàlla may alal ak mën-mën goo xam ne ñëpp ciy bokk jàpp rek ak ñi am volontaire yi mën ñoom it def ba yàlla ba yàlla sotal ko ok loolu moo doon kàddu yi nga ñaanal ñu yàlla di ci taxawaay bi nga xam ne wuti ko Mawlana Cheikh Ibrahim ñun amul sikki sàkk ne jaal xayr wa zaaba char sa bëgg nga bëgg a bàyyi bëgg a Cheikh bëgg a corno lépp nag di yàlla ci yàlla ngay dund damay wax ne li bàyyi wax ne mbootam Madina rogaat na fii amul sikk ne dana xam waxee bàyyi ni ko sa papa doon waxee Cheikh Mamoun amul tànk ganaaw tànk kanam la na fekk rek yàlla doon na ñun ñoo koy defar waaye nag mbiru bàyyi dana defaru bàyyi dafay wax ne boo xamee ne soo ayee da ngay mu boo ayee kenn du ay ngay mujj ayee bu fekkee moom dafa defaru feneen defarut waaye bu fekkee ñëpp dañuy defaru mu defaraat yaakaar na waxoon na ko ci rajo bi bi nga xamee ne toujours Babacar Thiam di koy nettali na ko bàyyi dañuy bëgg suñu rajo heure bu ne ñu ngi jàllale programme bi jàmbur ci la ko bàyyi waxoon na ko seen rajo mu ngi ñëw boo xamee ne soo aye kenn du ay da ngay mujj ayoo incha allah mari na li bàyyi waxoon ne bootam mari na ma ne ma nga rogaat ci marinam gi loolu dana xam yow na ñu ngi am yaakaar mu ñëwee ci yow bon na nga wax ne ñes laa sant samay waajur yëpp ñu foor lañ wante def nga ne bàyyi awa jëri ne xàqal la jabli kas is anni wakkilu sirri nga xam ne moom lañ dénk adduna bi yow nga juddoo ci côté yooyu nga xam Cheikh Mamoun xittim morom jaamu yàlla yi dem mooy tey dara jugu fi boo la neexoon nga tey sa climatiseur moo lay upp wante bàyyi ëppal na la loolu bàyyi da ko amoon pour xeet wi sëriñ ñu ngi lay bëggee ku dof rek moo xamul fi nga jëm waane fi nga jëm foofu la bàyyi rek di tànkam te foofu yaa te bi tàng na wante bàyyi ni mu bëggee woon yoon bi salaa salaam noonu nga bëggee sa waaye jur bëggee ko sa bàyyi moo Cheikh Ibrahima ñu ngi leen dokkal baax ne chance la nga ñëw dugg fii ñun toog fi nga xam fii la ñu bàyyi andi ñun tim damay wax benn bés benn histoire ñu ne nettali nañ ko ñu ne imam bi ko indee fii ci place am boobu fekk Pa Omar Diop ñu ne dañoo wax ne mbokk bi dañ ko demal bàyyi dafa laa sànni demal jox la benn place mu ñu wax ko bàyyi dañ ko bàyyi ne ko dama toog mu waar ko ñaari yoon bàyyi ne ko demal toog mu toog ba mu yàgg rek gis imam ñëw dëkk foofu mu den ak moom. nuyoo man la Adja ne doom Pa Ousseynou Niass maa ngi nuyoo di tatagal baay ak ñim àndal yëpp ñaan yàlla yàlla def jàmm ci dëkk bi ak xéewal a wërsëg ci barke baay baay bëgg rek nga dimbale ñu ci suñ mbedd mi rek gannaaw yàlla barke baay maa ngi sant maa ngi jërë wasalaam. di wax ne suñ tànk yi ñu ngi ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim sax saaxibil fayda mi nga xam ne ni mooy président COMAF mu jug ay tànk fan yi nemmeeku dëkk bi Medina Baye ak li ko wër yëpp te Medina bu ñu ko waxee fii ba kawoon ci Medina Baye la bokk fii ba Daar Rahmati ba Sancaan yi ci Medina Baye la bokk fii ba Medina Mbaba ci frontière bi yëpp ci Medina la bokk wala nga ne sax Kawlax yëpp ci Medina la bokk kon jug na ay tànk yoo xam ne ngir fuglu gàmmu ngam mu bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne maam Cheikh moo ko taxawal fii ci Medina Baye di ko def at mu nekk mu jugee fi ay doomam ak saxaabam di ko def ak taalibe yi yàlla def dëkk bi am nu bindoo mu naqari ko lool mu jug di xool njaboot gi ak kër yi ak dëkkandoo yi yëpp niñ dëkkee waaye liñ fi gis li nga xam ne ni moom moo ko gis ak bëtam ak ñu ànd ak moom mooy ne ndox mi ak euh, mbalit mi sonal na dëkkandoo yi lool sonal na waa Medina te loolu wax dëgg yàlla mi ngi ci ñaax autorité yi préfet dalee ko jaar ci gouverneur ak ministre de la assainissement ak ministre de l' intérieur ba ci président de la république nga ñu taxawaat Médina beneen taxaw bu bees su fekkee fee gàmmu xat na sax war nañoo góor ba nga xam ne nii danañ indi fi ay hydrocureur indi fi ay vidange yoo xam ne danañ dimbale leen ci ndox mi manqué ko mu génn kër yi jóge ci mbedd mi ndax gani gàmm yi mën cee dal ndax dem nañ ci kër yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ni ko ndox mi def jégg na dayoo te fii nii ci la bokk mbedd mi gis nga ni mel ndox maa ngi nii ci biir kër gi te ñi nga war a dalal ay gan ñu ngi ñaan autorité yi ci turu sëriñ bi Mawlana Cheikh Ibrahim Xaadimu Saaxibil Fayda ñu taxaw dina Baye taxaw li ko war ba nga xam ne ni nit ñi danañ mën a ñëw ci gàmmu ñëw ci dal ci jàmm mën a euh, def liñ bëgg a def daayira yëpp mën a tànt ci biir kër yi ak ci mbedd mi mën a julli ci yonent bi mën a màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggal Mawlana Cheikh Ibrahim ci bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma zalika allah bi aziz wasalaamaaleykum wa rahmatullah tey jii nag euh, maa ngi jégaluwaat beneen yoon ñu ngi fii ci kër euh, suñ bàyyi wattu cubu te tey xalifaam nekk fii ñu ngi ko ñaanal moom moom jiitu na yàlla jégal ko te yéeram ko te dëkkale ko Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne moom la yaakaaroon tey ak ëllëg xaj Abdullah cubu ngi nii mooy taawam moom lañ fekk fii di soppe ci sëriñ bi lool wax dëgg yàlla di taalibe Cheikh Mamadou Amine Ibrahima Niass yaroo ko ci moom ak diggante ma kër Hadj Abdallah di ku baax di ku bëgg lu baax moom ak ay rakam sëñ Mbaye Thioub ak Youssoufa Thioub mi nga xam ne moo nekk xalifa bi wax dëgg yàlla ni ngi leen di ma saw ci ni ngeen dëkkee ci ndox mi ak mbalit mi nga xam ne taxawaay war na ci ci autorité taxawaay war na ci ci kilifa yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla yombal ko ngeen ñaanal sëriñ bi moom tamit yéenaam ci askan wi yéenaam ci mbokk yi yéenaam ci Medina Baye yàlla jox ko loo xam ne dana soppi xar xanam bi na bàyyi ci barke yi nga xam ne ne ñu ngi foog lu gudd gàmm di ko séntu allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim gërëm Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane gërëm Mawlana yi tànk jàmm la tànk nemmeeku ci turi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci gàmm gi ñuy fuglu ñëw xool ñi seen dëkkwaay ak nemmeeku leen ci métit bi ñu nekkee ma gis fi lu doy waar lu loo xam ne daal foo ma dugg rek damay gën a gis loo xam ne neexul ci xol neexul ci gis-gis yi ay dëkkuwaay yoon yu métti ñu dëkkee ko noor ak nawet rawatina ci waxtu nawet bu canalisation yu baax amoon am na sax foo xam ne canalisation sax dafa agsiwul dañu ne waaye ne problème am canalisation ci la bokk waaye tuyaux yi ñu fi jaar yëpp defar bi baaxut rafetut waaye ñaxtuwuñ pour xas kenn waaye dañoo bëgg lii mu am solution rawatina nag gàmm gii di ñëw gàmm di ñëw luñ ci mën danañ jotal sëriñ bi ak kilifa yi jotal autorité réew mi pour ñu taxaw ci bu baax kon nag duñu def rek lu may gërëm ki nga xam ne nii tey këram lañ ñëw ñaan waajuram bu tedd ba yàlla yokk leeram muy eh, eh, Hadj Abdallah Thioub di gën ko xam ci sëñ As Thioub wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziyaara bu baax di ko nuyu di ko wax ne ko ñu ñaan di ko ñaanal jërëjëf. Ah, sëñ bi ñu ngi lay ziyaare bu baax ñu ngi bu baax di kontaan si sa ñëw fii waaw ah, ñun nag kilifa yi toogee mënuñoo wax waaye comme dañ ñoo wax loo foog ñu wax surtout yow sax lot nañ lool ci wax si sa kanam. parce que ay talibé rek lañ waye ñu ngi ci sa gannaaw dal di wax ne la dal koñ mom moom gis ngeen ni mel te fi gan mom, fess del lay def fi suñ gannaaw ay jolof jolof ño fi dal fi fay fess bay touru luñu jox ndox mi yëm nak moy ki ni assainissement bi motax ndox mi di ñëw fi lool dal buñu ci onance mënoon a dimbale ba nga xamné ne parce que timit ndox mi mom sa yu juggé rek ci penku bi la jëm buñu defal ñu ay ki ci mbéd mi que mbedd mee fa la yem mais xamna naa ne jàmp na feeg mo feeg gam waye ñu dimbalé ñu indil ñu ay auto ñu mankal ñu ndox mi fuñ wara war sëkk ñu sëkkal ñuko ba gani yi ñëw ci jàmm dal dellu ci jàmm xam duñ fi am benn problème lool dal ñu ngi koy sapp diko ñaan di wax ne commence nak ñu ngi ci rafetlu seen liggéey bugg nañ ci bokk torom nak parce que dama koy wax toujours CRD ba ñëwon nañ fi fële ci këru gan mais mënuñu wona jël kàddu pour wax parce que bobu dama bëggona wax ne ma ngi ñaan sëriñ bi ñun koñ yi nga xam ne ndox mi daf ñoo sonal fu nekk mu jël fa ay membre dugal leen ci CONAF ñu bokk ci liggéey bi parce que nit ku nekk fa mu dëkk moom moo ko gën a mën a liggéey euh, yaakaar naa wala moom moo gën a war a xam fu ñu war a fuñ fuñ waaw fu ñu war a liggéey wala wala wala wala fu ñu war a liggéey waaw ma ne mu dimbale ñu tamit parce que mbedd nit mun na xotti ñu ne ko doo xotti fii mais bu nekkee autorités yi ñoo ñëw di xotti kenn du wax parce que ñoom mbedd mi ñoom ñoom ñoo ñu ilif ñun ñëpp ñu defal ko ay yoon ndox mi mun a dem fu ñu war a sëkk ñu sëkk ko ba yalla dimbalé ñu taggo ak li gamu gi ñew ci jamu delu si jamu comme gamu nawet la mais ñu lay wax daal né la ñu ngi rafetlu sa liggéey ñu ngi lay ñu ngi wax né dañ la jappalé ñu gis la ak ñu ñak la gis parce que olof fay xalangu dajut suuf te mëno dem fenn fep yaa ngi dégg te gis nañ ci yow timit mat go xamné li ngay def defo ko pour ngistal defo yalla rek mo tax nga diko def ak bëgg yalla yalla rek mo tax nga diko ko ñun xam nañ ko fuñ tok dañ koy wax xam nañ ko kon fepp fuñ tok rek waru la xaar daf la wara jappalé ci liggéey bi pour mu jëm kanam xamne bu baxé fay yalla lañ ci am fay yonti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam sali fay sa maam radiyallahu anhu bay te ñun ñëpp mom la ñuy te ne am ngërëm bobu dara gënu ko màgg te loolu la ut ñu ngi lay ñaan dal da jàppale ñu bépp liggéey bu ñu la dénk nag yàlla na may la nga yagalé ko ci jàmm ba simbaat yenen nga sut sa papa aw fan ya mu and ak wër ba fepp fo bëgg yagalé talibé taalibe te ommal leen jëmee leen ci yàlla rek moo la tax a jóg yàlla na la yàlla may lool si barke Seydina Mohamed ñu ngi ñëw yàlla lool moom yàlla dina ko def wërsëgu yàlla joxoon sëñ Mamour radiyallahu anhu yàlla na la yàlla jox bu ko bu ko raw ba fépp foo xam ne mébétam bëggoon na faa yegg te yeggu fa rek nga yeggale ko fa si barke Seydina parce que amut kenn ku jëriñuwut ci moom amut kenn ku jëriñuwut ci moom njëriñ loolu nag yàlla na ko yàlla jël teg ko ci sa loxo nga continuer ko muy dem si barke Seydina Mohamed ñu ngi ñu ngi jégalu nag ci kàddu yi bu baax a baax a baax jërëjëf Niass jërëjëf. sant yàlla ñaanal si leen nemmeeku leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan dëgg-dëgg ni ngeen dëkkee metti na naa ba ci kër gis naa ni fii ngeen di jaar ah ñu ngi ci dox lu ñu mën nag ñaan si yàlla waaw dama fexe tamit autorité yi def def seen wareef ñu soññi leen yàlla tam ubbi ñu nit ñu mën fee def suñu yéene waaw loolu daal moo doon wax ji. salaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di jégalu si kàddu yi di rafetlu tamit teew bu mu fi teew parce que lii lañ soxla parce que mbiri na war naa dépasse bi waruñu basé sax si état parce que tey dama naan ñun luñ am fii mi fond bu ne fi am saar di ne fi comment bu ne parce que jàngoor balaa nga kaa faj foog nga wàcc terrain bi mën a xam ñii la ñuy dund kon ñu ngi lay rafetlu tey ba mu fi ñëwee parce que bëri na ñuy dem CRD xamul lii côté bii di dund te day leer na fi ay ñetti at juróomi at si gàmm si biir nawet la ñuy nekk te gàmm gu dafa am lu mu soxla bu njëkk ba dañ doon soxla ay vie de kër yi wala nangam gàmm gii nawet yi ñuy dugg luñ soxla mooy assainissement soxla wuñ sëkk soxla wuñ te si loolu la mbir na war a dox parce que tey ji ñuy gàmmu nga am ay gan yàlla ji taw gan yoon di xuus si ndox mi rafetut ñoon déwénee doo leen gis parce que am na ñoo xam ne xamul xuus ndox wala leneen kon nag ñu ngi rafetlu ba nga ñëwee xam li ñuy dund at yi yëpp lii la ñuy dund chaque année dañuy ñaxtu duñu gis ku fi ñëw. maa leen bëgg a bu ñuy dee tamit moom leen bëgg ne bu ñu dekkee moom bëgg nekkaat kon nag bëgg ne mbir na dàq si àddina bi dàq fépp loolu nag ñun ñoo ko mën a defar man dama ne ren loolu laa wax booy man leen man du ma wax dara état lu may wax mooy institution yi nekk mbir na ñu jéem a farlu jéem a liggéey mbir na maa ngi sant di gërëm di tuub si kàddu yi tax nag nit soo buggee ja euh, looy ñaxtu boo bëggee mbaax da ngay wax. lii lii góom bi liy góob ñu mën kaa saafara jërëjëf. macha allah ñu ngi leen nuyu bu baax ñu ngi leen tatagal di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla lii sant yàlla la. doomi Cheikh Ibrahima sëti Cheikh Ibrahima ñëw ba fii di ñu suñ coono sant yàlla rek lañ koy def ñu ngi lay gërëm ñu ñaanal yàlla lépp loo séem yàlla ko yàlla àggale ci jàmm yaa rabbi barkeb sa maam di barkeb sa baay yaa rabbi tànki sa baay awoon rek moom nga aw macha allah ñu lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér coono bi da lañ nekkee démb rek maa ngi ko wax ak Kéba ñaan ma ne ko man gani gàmmu bu ñëwee fan la ñuy aw ban bedd la ñuy aw di dugg fii kundul kundul fii mooy seen kër addina moo fii dajee dañ daan tant fii di def seen conférence bi waaye ren moom amul fi ñu ko defee ngeen nii mel bëgg nañ daa ku ñu dimbale incha allah ku ñu dimbale ku ñu jàppale yal na la yàlla dimbale yàlla dimbalal yàlla itam yàlla jàppale la ba lépp loo sémb yàlla àggale ko ci jàmm yaara bi coono rek lañ nee wax dëgg yàlla coono rek ku ñi dimbalé daal ñi jël waaw ñi nak mom état bi on da ci man walu walu bopam ndax momit mo ci ëpp doole daal wax dëgg yalla hmm wallahi yaakaar nañ ci yalla yaakaar la ci yaakaar ci état wàllu mhm. dimbalé ya rabbi ak baay amin ya rabbi amin yes amin uli mata ñes waaw doomi bàyyi limaan ñes limaan ñes bàyyi limaan lañ ma tuddé mo sama bàyyi bokk dé ak eh di sant yalla yónatu ba di gërëm ci Ibrahima Niass bi nga xam ne moo ñu dajale fii Taïba Niassène laa dëkk fa laa juddoo sama ndey ak sama baay yëpp fa lañ fekk baax waaye bëgg baay ak jeex ci baay moo ñu tax a bàyyi Taïba ñoo fekk si fii ñu ngi sant yàlla bu baax fii ulimate mii sa papa moo ko yóbbu màkk sa papa tëdd nañ ba guddi ay boori deux heures trois heures mu gaare oto fii wàcc dama damaa bëgg nga xamal ma ulimata booba dañoo ne ci politique bi booba yaakaar naa trois heures yi bëgg jot ma ne ko li ma daa ngi ne am ma jot yaaku moom mu ñu duggee fii oto ñu dem Dakar ci guddi kon nag boo kon nag boo jëkkee ba bi yàlla andil fi ah, nit nekk la bayam doon def ko wàññiwu dara ñi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla sa dala yokk sa maqaama may la wërsëg ak teraanga amiin jaar والطاعات بهما صراطك المستقيم قدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق أصل الحق بالحق ولا ديلا صراطك المستقيم على علي قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا ديلا صراطك المستقيم على علي قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين